أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم والصلاة والسلام على أسرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين مبكي مبكي جلتي jullit سنتي الله جلتي سيدنا محمد sallallahu alayhi wa ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di ñaan yàlla réew mi di Sénégal yàlla fi yàlla dotti jàmm ak sutura ak xéewal ci daraje sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam fa tabaarakallahu di nuyu kilifa diine yi nekk ci biir réew mi kilifa aada yi fa tabaarakallahu ñaanal leen yàlla yàlla na seen fan yokk seeni wér ci darajey sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam fa tabarakallahu dañuy nuyu cerno xaamidu baan ziyaar ko bu baax mu cerno basir taal ñaanal ko yàlla yal na yàlla yokk fanam gën koo dëgëral ci darajey rasulillahi sallallahu alayhi wa nuy mboolem ñi nga xam ne yëngu ci seen télévision safina tv di leen ñaanal jàmm ak sutura ak xewal di ñaan yàlla yàlla yàlla defar seen mbir te defar te defar suñu mbir ñu del suwat ak yéen ci seen émission madhu Nabi émission madhu Nabi muy émission bi nga xamne dañ fi tag sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wasallam waye di fi waxtane ay jikkoom di fi waxtane njangale mom rasulillahi sallallahu alayhi wasallam tay nak ñu indi len ben qasida bo xamne cheikh al haji Abdul Aziz Si dabbakh moo ko taalif ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam à 1983 ci la bind xasida bi di ci tagg sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa tagg yu yéeme te mbokk yi tagg sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa ah, dañu koy def rek ngir barkeelu ndax koo xam ne jalla jalaaluhu wa azza yàlla mu kawee mu màgg mi moo ko xool ba yàgg mu tagg ko tagg bu yéeme wax dëgg yàlla ku koy tàggati ku ne rek dangay ngay lu waaye kenn mënatu la tagg njool màkk lu gën a kawe li ko yàlla taggee ba tax na fa tabaarakallaahu mboolem ñi baax ñépp a ngi tagg sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax tagg rasulullahi mooy eseel bi nga xam ne ci la jaam bi war a jaare ba gaaw a yegg ci boroomam am na yoon yu bari nag waaye tagg yonent yàlla muhammad da caa gën a gaaw parce que yàlla moo bëgg sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba tax na loo laal ci moom rek mu yëg ko tabaarakallaahu cheikh alxaaja abdul aziz si malik ne ya azuli li hindin nasibun fi fuaadi daani wala mayla i maam abdu yow mi may yedd famaali hindin nasibun fi fuaadi ndaw si ñuy wax hind amul benn cër ci sama xol bi دعني باي ما ولا مايلاي نداو سيني واخ مايلا مايلايت امول بن تير كي سما خول بي شيخ الحاج عبدو دا جيل خولم جوخ كو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بامو جيخ تاك باي وو تي دارا مانام بو دون خول خولم موم شيخ الحاج عبدو دو فا غيس بلاص بو خامني كينن من نفا خاج باسكو لب جوخ نكو رسول الله موتا مو ني يومي ما يد maa ngi lay yégal ne hind mii ak laylaa mii mën naa ne faatu wala kumba ah, ñoom day amuñu benn cër ci sama xol bi kon nag bàyyi ma te kat na xubbi li mislihinna sax xaraamun Cheikh Alxaaji Abdu nee na su ma jëlee sama xol bii di ko jox hind wala ma koy jox maylaa nee na day daal di xaram parce que waruma jël sama xol di ko jox kenn ku dul sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom kon nag fa arix ni xaaliya gayru xafaay kon nag bàyyi ma noppal ma noppal ma parce que samay mbir nëbbuwul man ñépp xam nañ ne man Cheikh Al Hadj Abdou damaa bëgg sayyiduna Muhammad ba jeex tàkk ci moom kon noppalul soo bëggee koo yedd seetil keneen nga yedd ko waaye man Cheikh Al Hadj man sama xol bi kenn laa ko jox te mooy sang-sang yi ki jar a sopp ki jar a bëgg ki nga xam ne moo ne al mar'u ma'a man ahabba nit ku nekk bu yowmal khiyamé ki nga bëgg ci sa xol sop ko yene bokk logement ci aljanna motax boy fan fan wal kula neex way boy bëgg rek way na nga bëgg sayduna muhammad sallallahu Alaihi Wasallam. ah gaa nga bëgg de bër na koo xam bër na ñañu bëgg ah bëgg lu wuñu nak ta jaral na len sen tiofel yegg na ca ñoom ba dañuy joy ngir ñoom di say di xalangu ay eh, waaye buñ ko joxon sayduna muhammad sallallahu Alaihi Wasallam. Hmm. kon bëgg ba bëgg jeex bëgg sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo ci gën maam abdu ne xat ci dëgg saqaanii nandal ma kësal mahabbati kaasu cofeel rabbi sama boroom sama boroom moo ma nandal kaasu cofeel min fuyudaati xaatimil awliyaa yi waaye nag mu jaare ko nag ci faydu ki nga xam ne moom mottali wëli yi di cheikhuna tijaani radiallahu taala anhu maam Abdou nee na cofeel gi ma am ci rasulillahi yàlla dafa jël benn kaas pour nga dégg li may wax benn kaasuk cofeel la yàlla jël maanaam benn kaasuk sopp sayduna muhammad moom la yàlla jël jox ko cheikh ne ko jox ko cheikh alxaaji abdu mu naan ko bi ko cheikhu na tijaani jëlee jox ko cheikh alxaaji abdu mu naan ko bi mu ko naanee la jeex takk ci rasulillahi moo tax mu ne kaasu cofeel googu ma naan yàlla nga ko jaarale ci faydu ki nga xam ne moo mottali mboolem kuy waliyu te mooy abul abbaasi barzaqul maktum taajil aarifin mu middi kulli awliya rahmaani kookoy cheikh maam abdu ne waay waay yaa azuli yow mi may yedd fasrif aynaanaka anni waay waay waay nga seeti keneen watlubil xayra innani fi fanaayi waay waay seetil keneen ko yedd waay taga bama ndax man damaa jeex tàkk ci rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi Cheikh Al Hadj Abdou daa jeex tàkk ci rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ko dara te buñ gënee continuer di nga gën a dégg li muy wax kon nag yow may yedd ngir yàlla bàyyi ma waay da nga seeti keneen ndax man nag ki ma bëgg nag wax dëgg yàlla képp ku ko bëgg ñu yedd la ah kala yedd xamul la muy def moom la. شيخ سيد الحاج مالك رضي الله تعالى عنه دون وقت قصيده ما تي بروح نان م عازلي لو حزت علما لم تلوم هل عازل مثلي لم يكن بحرامي مه ندانكول مه دفال نانك واي عازلي يو اجي يد سما والله لو حزت علما بولاكون خم خم تي جوي من مودو كون لم تلم دوما يد maa ngi laaj sax hal azlu misli ndax yedd ku mel ni man sax Maodo lam yakun bi xaraami nekkul lu xaraam Seydi Aji Malik koo bëgg mun la Seydina Muhammad nga ko yedd ngir bëgg gi bëgg rasulillahi ba ciy jooy nga di ko ca yedd ah loolu nag ku xel ku ne xam nga ne loolu jaaduwut moo tax mu ne hal azlu misli lam yakun bi xaraami kon nag ku bëgg njoon màkka bëgg ko lool da ko caa war a encouragé cofeelam gën a yokk waaye waroo ko yedd ngir bëgg bëgg rasulillahi mam xamru shawqin man zaaqahu laa yubaali man ata laa'iman bi duunim mam abdu nee na xamru shawqin sàngaray cofeel te yàlla waxoon na ci alxuraan ne innama alxamru wal maysiru wal ansaabu wal azlaamu rijzun min amali lido ay damier carte wuure yeb sangara lepp da haram. way way gaa ñi moytandiku leen ko ndax mbirum seytaani la moytu len ko ndax ngeen texé eh. da ngay xol ku nek ci mbedd di lido wala ngay carte wala ngay ure. Eh. wala ngay wure nit dina la rombu ne la assalamu alaykum ta sax do ko deg ba di ko fay nuyo parce que ma wara dox ya war dox gañe la da nga nangam ta nuyo farat nuyo sunna la way fay nuyo farata la kon li la xañ fay nuyoo xam nga ne baaxut tabaarakallaahu te léeg-léeg nit ñi ñu dem ci ba cay saagante ba cay xeex ba cay waxante lu bon parce que mbiru seytaane la seytaane moo ca laxasu waaye moom Abdou na sàngarale mi xaraam xaraam xaraam nga xam ne mooy ummul xabaais mboolem jëf yu ñaaw yi sàngara mooy seen yaay gis nga sàngara boo ko naanee ba màndi amul lu bon loo mënul def mën nga fekk sa yaay ci biir kër gi tëdd ak moom man nga fekk sa rak ci biir kër gi ak mom man nga fekk sa rak ray ko jam ko pak te do ko yek parce que da fay tagale sa xel boo ne sangara ba mandi dootoo am xel dof ngay don ci sensi lo xamne ne boko boo ko don dof ba lu bon lu ne man nga ko def te do ko yek kooku mu jarna moytu motax ñu borom xam-xam ko ummul habais ndayu ñaaw tefi mam abdu ne sangara dafa haram way nak amna na bu dagga ñu ne ko moy ban mu ne mooy sàngaray sopp rasulullahi bëgg njool màkka ba mànd ci rasulillahi boobu moom dagan na moom moo tax mu ne xamru shawqin sàngaray laala moom di cofeel man képp koo xam ne saaqahu mos na ko laa yubaali dootul faale man ataaka dikk laa iman di yedd bi duunim tiraay ci lu benn sikki sàkka mam abdu nee na soo mose bëgg rasulillahi ba mànd ci bëgg sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam Mam abdu neena na yeddati doto ko faale parce que li nga mos ya ko xam ay way way way sama na la sukar daa sukar sukar suukar daa saf suukar so mas sukar do xam lu saf way bis bo doxé ba ma sukar di nga xam ne a neex hmm? kon nak so sopp Muhammad non la mel motax kula gëna bëgg ñol makka kula gëna gëna xoos ci bëgg rasulullah sallallahu alaihi wasallam mo lay gëna avancer ci walu yalla مام عبدنا حب تاها للمذنبين نجاة وأمان من هول يوم اللقاء دقل مام عبدنا حب تاها سبكي الله تدي طه طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى نينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم طه يالا تدي سيدنا محمد طه ne ko alxuraan jii ñu wàcce ci yow wàcce wuñ ko ci yow ngir nga texee di kon alxuraan dafa ñëw ngir texeel jaam yi kon nañu ko sopp moom alxuraan nañu ko bëgg nañu koy jàng gis nga ku la gën a bëgg sayduna muhammad salaa sallam moo la ëpp lu muy jàng alxuraan inna alqur'ana huwa almizaanu taarifu minhu ma xawayta min al ashwaaqi wa sadami alaaji maalik nee na cofeel ci rasulillah ñung koy xolé ni nga bëggee alquran ndax sayyidatna aisha ban ko laajee kan moy njool makka dene kana ka kana khulquhu alquran mom jëmmé alquran ji doon dox la kon nak yow bëgg nga njool makka te do xey ba jang alquran mën a toog weeru yàlla doo jàng atum yalla am ci ño ne kaamil ya yor fañu ko tek boko ko boko boo ko fëgg di soj boo koy fëgg rek di soj parce que poussière nga ca bari nga xam ne ñii gëj nañoo ubbi seen kaameel ba bu jàng ko day jàng moo tax Cheikh na Tidiane nee na képp kuy sama taalibe chaque jour lu mu néew néew néew néew na nga jàng ñaari xisib bu alxuraanu karim waaw loolu baax na de mbokk yi ñaari xisib nag boo ko dee jàng chaque jour weer wu dee nga am kaamil waaw weer wu ne weer wu dee nga am kaamil nag boo dundee at am nga fukk kaamil ak ñaar ah fukk kaamil ak ñaar boo ko boo ko multiplier cinquante ans yoo dund ñaata kaamil nga wàcce kookee sa affaire mën na cee baaxee. sa njabot seen affaire bax ci say mbok seen affaire bax ci waaye da xey di dang rek di ut alal fàtte yàlla mat naa bàyyi xel nak wa nañuy baye xel sunu borom nañuy jaamu yàlla nañuy jang alquran nda alquran yowmal xiyaam daf ñuy plaideel comme ni sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam dañuy plaidelee ah alquran day ramu de yati yowmal alquran yati yowmal qiyam shafian li ashabihi njol mak neena na qiyam alquran da fay ñew di ramu ñi nga xamne ñoko beggon dan ko jang daan ci financé seen alal bëggoon ko sopp ko waaye waaw boo mënta jàng alxuraan bëggal ñuy jàng alxuraan deel def ci alxuraan waaye jàng lool alxuraan bëgguloo ñuy jàng alxuraan sa dërëm ñu dem du dem ci alxuraan ana sa cofeel ci rasulillahi ah Sénégal nag am na ñu fiy xeex alxuraan te koo ci ne dama bëgg ndax bëgg nga Seydina Muhammad mun la lool te alxuraan rek la ñuy xeex est ce que ñooñu bëgg nañ Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam maam Abdou ne xubbu taaha sopp njol màkk najaatun mucc la. lil musnibiina ñee defkatu bàkkaar yi maam Abdou nee soo bëggee njol màkka bu yowmal xiyaamee lu sa bàkkaar bari bari nga mucc waaye wa amaanun min hawli yowmi liqaayi sécurité la kañ ëllëg yowmal qiyaam bi nga xamee ñépp tiit jaaxle kenn du xam fooy jaar maam Abdou nee na ku bëggoon njool màkka yow doo tiit gaa ñi bëgg njool màkka am na valeur ah. am na solo lool motax nak sa tiofel bu deggo ci rasulillah sallallahu alaihi wasallam ni ñi koy xamé moy tiaxan yi nga nekké won ak bakkar yi nga nekkoon nang koy bayyi waaw bo bëggul won jol mak nek ci ay bakkar bo demé ba commencé sop njol mak te mu deggu ci sa xol da nga yek ne bakkar yi nga won daan ko def bu ñëk to ko ya nga commencé bayyi ben par ben di bayyi ben par ben loolu lañu xamé ne yow ndax sa tiofel mu ngi mu ngi mu ngi avancer wala avancer wul way dama bëgg njol mak te tiaxan ñu ne fu ñu gesso loolu moo loolu moo baaxul maam Abdou nag di wane ne cofeelam ni mel ci sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu ne inna xubban nabi bëgg ki yàlla solo an nabi yu boo ko déggee mooy ku yàlla solo ku yàlla jox information yónni la hmm? inna xubban nabi mu ne bëgg gi ma bëgg ki yàlla solo di rasulillahi xaalata lax mi daa jaxasoog sama yàpp maam Abdou sama yàpp bii sama yàpp yaram bii soo ko doon vérifier di ko xool la nga cay fekk mooy bëgg sayyiduna Muhammad wa izami nee na sama yax yi boo ko tojoon la nga cay fekk mooy bëgg sayduna muhammad wa damma doona riyaa yi nee na sama deret jii di daw sama yaram soo ko vérifié la nga cay fekk mooy bëgg sayduna muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu ne ko cheikh alxaaja abdou ah lii moom lan la mu ne billahi ngis sa taxul li may wax mu am te loolu wér na parce que ba mosaana feebar abdul aziz mbaay bu ñëwee taggal ko sayduna muhammad mu wér kooku cofeelam dëggu na ana ana kan moo fi feebar nag di ñu lay tàggal njool màkk ngay wér loolu na day fekk nga sopp Seydina Muhammad gëm ko wóolu ko mooy tax loolu mën a am mais boo amee loo ci sikki sàkka rek dara du feeñ ndax nag booy booy ñaan yàlla sax te wóolu yàlla yàlla du la may maam abdu ne haaja shawqi li xubbi xayril baraaya mazharil lutfi akramil kuramaay maam abdu nee na haaja yëngu na ñu ne ko cheikh alxaaji abdu lan yëngu mu ne shawqi samak tiofel fan la jëm li hubb khairil baraya bëgg ki nga xamne lu yàlla bind ci mindeef mo ci gën ñu ne koy kan mu ne mazharil lutfi mbollem ñi am ñewont mo leen ëpp ñewont waye ko koy kan mu ne akramil kuramaa yi mbooleem ñi tedd mo leen gëna tedd mom che moom muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ne ko ma abdu ngay wax batay xamaguñ ko de mu ne koy sayyidil mursalina 313 yi yàlla yone moy sen sang waaye yemu ca haadil baraaya mooy gindi doomu aadama yi jëme leen ci yoon wu baax wa oh li ridallahi jëme leen ci ngërmande yàlla bër na ku woo ay mbooloo waaye fa nga leen jëme baaxul de waaye moom nag moom sayyiduna Muhammad mboolem ñi ko topp fa mu leen jëme rek mooy ridallahi te mooy ngërmande yàlla kooku nag soo ko xamul man la mooy waalidu zahra yi mooy wuy juru fatimatu zahra mi nga xam ne njol màkk daan na wax ne fatima bidaatun min faatima fatima la ci man faatima ndaw su yéeme la woon mooy jigéen ji nga xam ne mësul gis règle moom fatima xam nga lu tax nit la koy meññi ci ñam lay jóge yàlla moo jël pom ca pomi aljana ya jox ko jibril ne ko jox ko rasulillahi maa ko ko jox kado njol màkka lekk pom ba pom boobu moo meññi Fatima moo tax nit ki li ngay dundee na ko xam gis nga boo dundee alalu sàcc boo ci juree doomu sàcc bul ko yedd boo julee boo dundee alalu tiriyan alalu luubal ah yooyu boo ko dee jur ba ba boo ko dee dundee ba jur ca doom mu nekk ca bul ko yedd de parce que la ko meññi la moo tax nit danga war a xool li ngay jox say njaboot waaye da nga war a xool li ngay lekk li ngay dundee waaye loo jekk rek lekk baaxul de moo tax Fatima mos a gis régal Fatima Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi mu fi bàyyi ko sirru nubuwa gi mu yoroon Fatima la ko dénk ndax après njool Màkka yonent mënatul am moo tax yàlla teel a rey ay doomu rasulillah yu góor yi yàlla teel leen a jël ndax doomu yonent yonent. ci sunu jamono doomu sëriñ sëriñ mënoo ci dara yàllaa ko def doomu yonent yonent yonent comme du nekk jigéen nag góor rek la ma doon yàlla jël doom yi Seydina Muhammad yu góor yi bàyyi fi yu jigéen yi Fatima moomu nag moom la yàlla moom la Seydina Muhammad jox siru nubuwa ga ñu jox ko Seydina Ali mu jur ci mu maam ci ay cheikh Ousseynou Assane Hassan mooy maami cheikhu Tijaani Xuseynu mooy maami Abdul Xaadir Jeylaani surafaaw yaa ngi noonu mu ne xubbu taaxa nabi ma abdu neena na bëgg muhammad mi yalla solo fardi moy sama farata wa nafli moy sama nafila wa sharabi moy ndox mi may naan wa muniyati moy sama mebet wa ghizai moy sama dundu xam ngeen ne kii daa fanaaw moom bëgg njol makka dem na ba sax mooy farataam legi ay moy farataam moy sunnam moy néegam moy ndoxu zamzamam moy dundam mu ne huwa bayti moy sama néeg wa zamzami mooy sama ndox zamzam wa xatimi mooy sama xatim wa maqaami mooy sama maqaam ibrahim wa marwati mooy sama marwa wa safaayi mooy sama safaata marwa nee na yooyu yëpp def naa ko sama def naa ko muy sama cofeel ci rasulillahi mu ne xaram mooy sama xaram mashar yi mooy sama mashar misaab mooy sama misaab wa rukni yi mooy sama rukni yaman xajar mooy sama xajur aswad wa qiblati mooy sama qibla wa xaaru xiraa mooy sama xaaru xiraa ñu yasri bii mooy sama madina qubbati mooy sama qubba qubaaya mooy sama qubaaya baqiici mooy sama baqiic uxud yi mooy sama uxud suufat yi mooy sama sell waaye wakkan zuxinaa yi mooy sama ndàmbuk trésor gis nga bëgg day mat sëkk maam Abdou daa bëgg Seydina Muhammad ba mboolem bërëb ya wër Makka ak Madina bëggaale na leen kooku mu bëgg Seydina Muhammad ba jeex tàkk ci moom maanaam bëggul li ci njol màkka bañ li ci rasulillahi moom léppi njol màkka la bëgg moom Cheikh Al Hadj bëgg na sax ba bëgg montagne ya ay Uhud ay xaaru Xiraa yooyu yëpp nee na bëggaale naa leen bëggaale naa sax Yasrib Madina ñoom ñëpp bëggaale naa leen ngir kan Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne huwa xilli mooy sama xel. masaaya moy sama dox way babu salami moy sama Babu Salam, wa matafi moy kaaba gi may wër biiru xarsi moy moy sama biiru gharsi wa ma'i moy sama dox <laughs> ki nak mo fanaaw deug nak jeex tak ci rasulillah ba deseul dara ci mom beure bi nak gaay aji makka ñoo koy gën xam ñi aji makka ñoy gëna xam beure bi yalla ñu fa yalla yobbu waaw bañu ñu jàkkaarloog bërëb yi Cheikh Alxaaja abdou di tuddu waaw yalla bu umpu kenn waaw yàlla nañ ko yàlla wërsëgale ñun ñëpp ñu dem ba gis bërëb yi comme ni ko Cheikh Alxaaja Abdou di tudde boobaa nag lay gën a leer ci suñu bopp maam Abdou ne yaa azuli yow mi ma yedd fii xubbi ahmada ci bëgg gi ma bëgg rasulillahi te dara taxul nga may yedd jëxlan ngir réer rek a tax wabnihi ak doomam ja cheikhina tijaani te mooy cheikhu tijaan mi nga xam ne raja mooy sama yaakaar waaye waaye ma nee na yow mi may yedd ngir bëggi ma bëgg Seydina Muhammad di Ahmad ak doomam jii di Cheikh te dara taxul nga may yedd ngir réer rek waaye billahi boo xamoon kuy njol màkk billahi boo xamoon kuy Cheikhuna Tijaani wallahi doo ma yedd barzaqul maktum taajil aarifin mu mit di kulli awliya rahman laa wax de abul abbas xam nga Cheikh dañ koy woowee abul abul abbas boo ko déggee mooy baayu borom kanam yu ñàng yi cheikh da daan fekk ab bandi bandi international nga xam ne kanam gi day ñàng bari ay cicatrice soo ne ko jàkk doo ko ñemee xool xool bu yegg cheikh da lay jël cuub la defaraat la sol la ay leer ba foo taxaw ku la xool xoolaat la moo tax ñu tuddee ko bàyyi boroom kanam yu ñàng yi xam nga ne bër fi fi jamono toll la ah, bë bëri bëri deh ko soxla de waaw bëri ay bandi ci rew mi de waaw jamono cheikh nak mom bandi mom mo moo leen defar mom defar leen bañ ci sen borom te yalla pire ngok barzakhun maktum hein ma abdina la kon la talumni way way bu mu yedd ndax fa inna fi huyami man dama man dama mandi ci bëgg sayyiduna muhammad alaihi wasallam ta sax law misli zulmun ladal uqalai mam abdu neena yeddu ku mel ni man tooñ tooñ la ci ñi am xel koo bëgg yonent yàlla Muhammad koo bëgg Cheikhuna Tijaani maa abdu ne nag a ah, wax dëgg yàlla nag kooku nag ku koy yeddu ku ne dangaa dangaa gàtt xel rek waaye boo amoon xel tuuti di nga xam ne lii ëpp naa def kenn du ko def sallallahu alayhi wa sallam maam abdu ne sayida rusuli xaatimil anbiyaay mustafa allahi safwatal asfiyaay مفزع الناس عند يوم ازدحام وشفيع العصاة يوم الجزاء مام عبد نينكي كيماي جواب سيد الرسل موي سانغ توران سان تريزي خاتم الانبياء موم متال يوننتي يوننتي دوتو نيو غناوام شاخان باخول مصطفى الله موي تانيفو يالا بي صفوه asfiya yi mooy selluk way sell ña ña gën a sell ci ñi sell ka leen gën a sell Cheikh Alxaaji Abdu mafza an naasi muy wéeruwaay jaami inda yow mis di xaami bis ba ñuy raj lajloo ak a buuxante bis ba nga xamee ne ay jaaxle wa shafi al waaye defkatu bàkkaar yi mooy katu yàlla bu yowmal xiyaamee moo leen di ramb moom sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ah kooku nag jar naa joobe jar naa tagg jar naa woy jar naa bëgg ah moom sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa kon nag fa salaatun min al ilahi wa salaamun alayka duna alqidaai nee ak julli bu bàyyeekoo ci yàlla ak jàmmam yàlla na nekk ci yow rasulillahi te te tam jeex ba ilaa yawmi diin maanaam salaatu ak salaam daal yàlla bu mu deñ di dotteeku ci kaw sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon fa tabarakallahu yàlla na ko yàlla soppaloo yàlla na ko yàlla bëggloo yàlla na ko yàlla tabbal ci suñuy xol moom sayyiduna muhammad ñu koy doxee di ko waxee di ko jëfee nee naa bëgg nee naa am réew la koy doxal mooy dañuy bëgg sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam taroy ay jikkoom sëriñ Maodo si neen taha bi zikrika xannatil akwaanu wa bi nuuri hadiyika saadatil azmaanu sëriñ Maodo si nee na yow sayduna muhammad tudd giñ lay tudd adduna bi ci lay naate tudd giñ lay tudd jamono ci la sangoo moo tax tudd sayduna muhammad am na solo kon fa tabarakallahu yalna corona gaaw jeex bañu delu wat ci tant di jobe wat sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam nda bu ko defé lolou moy dak musiba yi musiba yi bari yi bu ñuy joobe sayyiduna muhammad di ko yalla dañ koy dakal kon nak ñu ñaan yalla yalna corona gaaw jeex bañu delu wat ci tant di jobe sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam leer yi tasaaroo ci réew mi bu ko defé lëndëm gi dakku rek dekk bi am jàmm am salam am natange foofu la ñuy teg sunu baaraam buñ dellusiwaatee yeggale xasida bi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu